I've got an itch I can't scratch I'm missing a piece that completes a whole part of me An open wound scar to see Everybody come here, gather round Welcome to the freak show, the best in town What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly I've been living in my own head constantly Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy Wait, all these thoughts are too mm, negative as peleñaa yaa ngi démarré peleñaa yi ñu ngi démarré te dara waralu ko lu ak sa xaj yi dégg non dama la expliquer rek. yow lay dégg dama lay expliquer. voilà léegi nag man génn naa ci koñ bi mënutumaa génn mënutumaa dem fenn mënutumaa dem jàkka ja mënutumaa dem jumaa parce que fu ma génn bu ñu la waxee dinañ ma ci laaxaale ndax maa yow ñëw bokk xawsu bi dégg nga léegi nag li ma bëgg mooy lenn lañ ma sant te liñ ma sant dinaa ko def parce que xaj yow loo yore ay mala ay xaj yow xaj yi yow yow lan lan la ban ban kii la la amal yar fa ay xaj te dégg naa nag ma wax deguma sax dama gis xaj ak borom ñoo yam ay xaj lañu yow xaj nga da nga def sa bopp xaj man nak duma xaj deug nga la xala nañ ma ci xaj bi d' ko ab sa dëkk sa ma dëkkal ay xaj ndax yow mo dëkkal xaj nga ya xaj yena yam yem nak wa kon bi bolo nañu tok nañu waxtaan nañu ba trouver nañu solution solution bi nag mooy leen euh, jumaa ja man ñu bari fi toni samay morom ko ñoo dem jumaa ja ndax sa xaj yi bu ñu waxee nga naan da ngay défilé da ngay def ay spectacle da ngay génn fi mu toll imam sax pour mu jiite problème yoo xam ne imam dafa am problème mu kër ñi mu wul xaj xaj yi tànqal nit ñi mbaw guddi mbaw bëccëg léegi sax nit ñi ci ñoo dañ sax bitik dégg nga léegi nag beneen bi ci topp mooy comme réunion nañ ñun suñu biir ñun nit ñi dañoo bëgg a jëlee xaj yi ci dëkk bi te yow bu ñu lay jëlee xaj yi yow munoo cee bañ a bañ boobu parce que xaj nga dégg nga léegi nag imam moo ma yebal ak chef de quartier ñu def nañ li ñu war a def lépp comme nag maa ngi ñoo bokk kër gi li ma bëgg mooy nga xool noo éliminer xaj yi. ah yow buñ la daggul doo noppi. waaw. parce que maa lay suivre nga mel ni ci lu bënn di wax di dem damaa bëgg ngeen xam ni yéen réewoo leen yow réewoo. imaam moo ma yebal. moo la gën a réew moom mu toog di yabale man ragal xajam lu ci man du sama ŋaññi ah yéen li ngeen di def moo jar a lijjanti ngeen ba ma ak samay xaj xëy na xaj yi amalu leen njariñ mais man gis naa njariñam nit da ngay maadu benn koñ ñaata jàkka jàkkaa ngi nii ci ginnaaw kër gi benn ngi fii bii boo génnee kër gi dajeeg benn ki amul benn jàkka boo xam ne dina ci am sàppe bu fees yéen seen biir bii ne lan ni ngeen di jaamoo yàlla ban façon la fee ngay nodd di dégganteeg sa morom yéen ñëpp war ngeen a mën a maase ne ci benn jàkka ngeen nekk di doxal seen i kala yéen jàkka yi xuloo ngeen man li tax ma kuul nag dew ma jàkka ja comme lii la ma toog gérer samay kalbu di leen yar naes yéen nag toog leen ngeen xuloo seen i xuloo te na njëkk tey na mujj tey ñu lay yabal day ñëw di kaas si loolu dégg nga ma wala déggoon. dégg naa la. mën naa la cee nopp mais dama lay dawal saam tey. man dama yow man ngay waxal de. yow yow maa la man maa la buddool te yow xam nga li nga ma wax nii bu du woon sa kal bu ñu ngay def leen défense dal naa yàgg te sax beneen bi am na lu ci gën a yombati sax nag. dañ maa yebal ni ma bu ma ñëwee ci yow am na loo xam ne boo ko waxee ma toll fii woote te su ma wootee dinañ ñëw fii am embuscade la wax def liñ fi war def léegi léegi mu jeex. Ah. may ma tuuti. Well, we were. may ma rek. wuy ma waaye bu wootee. defal ndànk non defal ndànk waaye wuy ma. may ma ma rek. affaire bi waaw bëgg ñu waxtaan man ak yow. xam nga mbir yi du lu ñuy waxtaane xol. léegi may ma am na lu tuuti. xam nga lu nar. woon dañu doon ñëw taal kër gi xaj yi yow ci boppam ñu la ci kaso bi doo génn ba tukki. non Fall loolu sadik na. non loolu sadik loolu lañ naroon. mais wuy ma. waaw dañ ko waxtaanee xel. ah ok yaa déggoon na rek. yow sama nit la. yaa dara ba rek. ndax kër gi man ak yow ñoo fi nekk. waaw ak xale bu jigéen bi. waaw xa non. waaw waaw xale bi ñun ñett ñoo ñoo ne ci kër gi nag yàlla dafa dogal maa jiitu ci kër gi. te ku jiitu am loo jiitoo. waaw mais dinaa weñu ko man baalu la ak. xaji dinaa ci seet pexe. Mm-hmm. comprendre nga. waaw moom daal. lépp dina naaj damay dugg ci biir am lu ma indi. nga baalu la ma ko waa jàkka ji. waaw waaw xam nga mbir mi soriwul. Hmm. boo jiitoo woon lii problème du am. man aal laay dem ko woon. non mais nga war a bàyyi xam nga tamit waa jàkka jeeg waa jumaa ñoom amuñu problème. Hmm. li nga mën nar a jox nii man bu ma leen ko joxee ñoom ñu fàtte lépp. ñoom seen jox ak yow sa jox. da ma lay baaloo ak. ah yow boo baaloo <laughs> eh, as. Eh? as dafa loolu. xaaral ma ñëw ñu bàyyi lépp. xaaral ma ñëw dafa loolu. moo gën. looloo gën waaw. léegi bu ko defee sax maa yow ñuy mën ànd waaw di foofu waaw di foofu di dem jumaa je di dem jàkka je di julli. di réglé waale suñuy problème. waaw waaw waaw maa ngi lay xaar. waaw as amul problème nag xët-xët yi bari nii rek mais ndeysaan amul ben problème. la ilaha koñ bi dina yabal ngay ñëw naan yaay aar xaj yi laa lay bàyyi coob sa ndey 5-5 bu sëq bee lay lekk xontu xaj nga tey waa koñ bi dina yabal ngay duul di simile di ñëw fii di njaay ngule nga ni eh, bu leen as xeex la nokk lekk leen waaye yow réewoo sax di ma bàyyi sama jikko man bàyyi bande koñ bi baabu réew bi I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town.